jullit la imaam xaadim Ndiaye sëriñ daara euh, nekk secretaire général ralu rabitatul madaris al qur'aniya muy ligue de daara du Sénégal dama bëgg a ñëw rek am lu ma leeral ci yenn taxawaay yu ma gis ak yenn yoo xam ne ci suma juumu dama jàpp ne ak ëppal lay bëgg a doon ci ñaari yëf yu ñuy jaxase ak yu ñuy jaawale te itam farfarloo bi léeg day xaw a bari lool boo meree nit fàtte mboolem lu mas a defal lislaam bu wuuteeg yow ci xalaat daa nekk jaaxil euh, léeg-léeg daal yëf yi day xaw a am nu mu tudd benn li tax ma di ko wax mooy am na benn mbokk bu ñuy wax euh, imaam Serigne Lamine Sall dafa am njuumte loo xam ne. moo xam juumte la wala moo ko jublu wala gis-gisam la euh, mënees na koo jàppe njuumte ngir waya falal ko ko waaye njuumte it borom da ko war a nangu bu demee ba leer ci moom mu dellu ginnaaw ndax dafa wax ci euh, ñi nga xam ne ñooy ànd sàmm jikko yi te mboolem jullitu Sénégal ak ñi dul jullit sax bokk ci mu wane ne bokkut ak ñoom gis-gis ba wax ci ñoom wax yu bari wax joo xam ne ba keneen ku dul jullit su ko waxoon bu fekkee nun jullit am na nu bu yëg-yëg waruñ koo bàyyi noonu dañ ko war a topp moom wax na ko en tant que jullit mu boole ca tarxiis ba laal ñi nga xam ne ay chrétien lañ ci senegal laal boo xam ne mën na am sax diisewut noona mën na amit diis na ñoom nag diislu nañ ko laal boobee ñoom ñu réagir ñaawlu ko ba def seen conférence de presse ba jël ay matuwaay yu bari mu mel ni autorités yi sax am nañu tuuti e, bëgg a e, e, ànd ak ñoom ci ñaawlu googu ma gis nag ñu baree baree bari ci boroom xam-xam yi mu mel ni dañ ko ne ñaw dañ koo yéene loolu moom ci boppamit gis naa mu def ak jéggulu jéggulu ga ñi tooñ wala ñi jàpp ne da leen a tooñ dégg naa ñu wax ne jéggulu googu mu jéggulu éggul ci xolam ci audio bi mu ko def dañoo jàpp ne dañoo bëgg mu dem ca organe ba mu waxee woon mu taxawaat fa wax te jéggulu gu def ci audio boobu sax yaakaar naa ne jéggulu ga rëy na lool diis na lool rëylu naa ko lool par rapport ak tooñ gi bu fekkee tooñ na jéggulu gi moo ëpp fuuf tooñ ga waaye teewul ñoom xeeb nañ jéggulu gi ba di ko woo ca organe ba leneen li ci dolliku mooy ñi koy ndokk ak di ko ñaw dafa am leneen lu ma leen bëgg andil tuuti mooy ab abbe buñ xam ci senegal mu wëlbati ko wax ci alxuraan wax ji nga xam ne moom la ci wax nga xam ne ay benn benn imaam ñoo ca ba yam fa wax jooju ndax borom xam-xam yi dañ koo gisut ndax jullit ñi dañ koo gisut loolu moo gën a rëy fuuf li Lamine Sall wax boo ko multiplier woon par dix moo gën a rëy li Lamine wax loola dañ koo fàtte jàpp naa ne moom mii moo waroon a jéggalu julit ñi moom la jullit ñi waroon a jóg ci wax ak moom waaye dafa mel ni li ñuy toléreel ku dul jullit duñ ko toléreel ab julit bu juum loolu itam jàpp naa ne euh, euh, xaw ma nu muy tudd mën na tudd euh, woyofal sa diine mën na tudd maslaa mu ëpp mën naa tudd ragal gu ëpp mën naa tudd complexe waaye jàpp naa ne moom mii moom waree soon naa wax ak moom ndax ci bitti diine ji la nekk Lamine Sall itam nag bu fekkente ne dafa jàdd tooñ ñeneen jaadu na mu jéggulu jaad na mu wane dafa dafa juum waaye waruñu ko ndokk waruñoo jël loolu def ko arme itam ndax lan mooy dafa wuuteeg nun ci dañuy xeex lu bon lii te moom nim ko gisee ak nin ko gisee bokkut te am na sax fuñ ci daje ci bon gi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 bu ko neexee mel ni Cheikh Anta Diop. Mm. Mbab Abibou grand fonctionnaire yi. labbe yi kon maandu gañ leen doon wax maandootuñ gannaaw nee nañ jàngalee biibu ci aw ci daara yi moom maandootuñ léegi moom. télévision bañ ko doon waxee nee nañ ak taalibe ko moom te nangul nañ ko ak taalibeem. yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin di jàng alxuraan di jàng biibu waaw waaw. bi ba dafa la bëggoo wax ni la. Eh. xam nga déjà ca ca ndorteel xam nañ ne pays laïque la lañu ne. waaw euh, boo religion bu waay mën ci bokk. Mhm. boo demee na nga ca dal ñu jàngal la ca. lañ ci ay kayit ci ay kayit nii mais quatre-vingt-quinze pour cent musulmans il faut. no non non mais attends gis nga xaalis catholique. ah xale catholique bu nekk par exemple Palmarin mbaa Djilas et le petit musulman c'est pareil ñoom ñëpp ñooy raam di moo xa suuf.